tambalé ko ci atum ren ak milliards ak fukk yo xamné dina ko ci li nga moy ñun ñu bëgg poser li nga problème est-ce que nous dina régler question xeyum ndaw ñi ndax li nga depuis atum 2012 ba léegi mënagul régler est-ce que dañuy xaar ba fi nga kon euh, foofu lañ toll tey ñu koy door régler est-ce que fond yooyu ñu annoncé est-ce que mën na ci daram déet loolu ay question la yoo xam ne nañ ko yëkkati buñ ko naree régler yan piste de solution lañ am parce que ndaw yu bari ñu ngi am jankontel ci wàllum euh, formation ñeneen ñi am problème euh, li nga xam moom mooy insertion nekk na ay question yo bari yoo xam ne ci biir waxtaan wi dinañ ci ànd ak suñuy invité waaye également suñuy chroniqueur ngir ñu mun ñoo leeral ba xam ndaw yi su fekkee bëgg nañ génn ci tekk tekkaaral boobu ak ñàkkul liggéey boobu nga xam ne nemmeeku nañ ko ci biir réew mi rawatina ci biir département de fan ak fan la ñuy jaar ba tax na ñu ànd tey ak ki nga xamee moom mooy euh, Bassirou sen nekk président conseil départemental de la jeunesse bu diwaan bu Mbacké ñu koy jox mu nuyoo euh, sëñ bas eh, merci beaucoup Diop ñu lay nuyu.

sommes sama premier conseiller donc sama premier collaborateur nous moom ko ñaanal comme niñ koy defee rek depuis boobu ba léegi euh, suuf sedd kawam boole kook euh, maamam ja euh, di ko aussi tout tout le département de toute la communauté mouride mais particulièrement la commune de Darou Salam bi nga xamante ni ñoom ñoo de gën a perte. Mm-hmm. jërëjëf mm, Bassirou Sène keneen ki nga xam ne la ci euh, ci euh, ci cadre spécialisation muy pap Abdoulaye John nek conseiller en emploi manam kuy xelal ci walum xeyun xey de façon générale nek nak ci mission locale bi ñu installé fi euh, pour l'emploi et l'entrepreneuriat nek ci diwan bu Mbacké agent la fofu c'est john ñong les lay ziar bu baax baax di la dalal jamm waaw ñong leen di nuyu di leen di remercier d'abord ci euh, opportunité bi ngeen ñu may pour ñu mën a euh, jàkkaarloog askanu Mbàkke pour euh, waxtaan ak ñoom loolu bu wëyee aussi ñuy nuyu seen auditeurs yëpp di nuyu autorité religieuse région bi yëpp surtout suñu xalifa di ci profité aussi di jàll communauté mouride bi ci tiis bi fi bi fi jaar <coughs> di nuyu autorité administrative yi ak autorité locale yi di nuyu aussi suñuy kilifa Euh, de le ministre Dame Diop mais également suñu directeur mi nga xamné xejna mi ngi def aussi liguey bo xamété ni ci côté emploi des jeunes liguey bu mucc ay la ñukoy nuyu diko encourager au passage. di and ci waxtan bi également ak euh, Babacar Samb ñukoy koy xaarandi léegi mu exi ak euh, Marema Diop bu RFM Marema nga nuyu auditeur yi ñu tàmbale waxtaan bi maa ngi Mohamed. fay Mouhamed maa ngi lay jaajëfal bu baax di nuyu suñu ay invité Basirou Sène ak ki nga xam ne moom Abdoulaye Dione waaye tamit di nuyu auditeur yu rajo Futur Média première question euh, Abdoulaye Dione yow laa koy jagleel nga nekk agent ci mission locale pour l'emploi et l'entrepreneuriat mu mel ni kuréel gu yees la euh, ngir jëm ci xëy de façon globale rawatina xëyum ndaw loolu kañ lañ ko samp ak lan moo ko tax a jóg exactement ngir nit ñi mën ko xam ak tamit fan ngeen nekk ci biir département bi. waaw euh, yaakaar naa boobu question moom question bu pertinente la. ndax euh, boo xoolee euh, yàgg na ñuy yëngu ci wala ñuy wax ci mission locale xëj na biñ njëkk a installé mu nekkoon ci Diourbel ñu installé woon ko vers le mois de février ñu nekk di ko doxal ñu gis ne aussi nañ koy doxale euh, am na lu muy njariñ bu muy jëlal population euh, population bi foofu euh, may ñëwaat rek xëy na ci concept mission locale muy mission locale muy mm, mission locale pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes dama koy préciser des jeunes et des femmes mu di bërëb boo xamante ni day nekk benn démembrement wu direction de l'emploi maanaam ministère bi nga xam ne Euh, dañ koy def ci département bu nekk ci Sénégal ñu nekk ci phase pilote nga xam ne nag jum euh, jubluwaay bi mooy ñu fexe ba département bu nekk ñu fexe ba territorialiser li président de la république wax ñu territorialiser politique publique d'emploi yi gën a jege ndaw ñi gën a jege askan bi ba nga xam ne lépp li nga xamante mi ngay xew Dakar lépp li nga xamante mi ngay xew Thiès nga ci département yi gën a reculer ci Sénégal ndaw ñi nekk foofu ñu may leen chance bi nga xam ne ñu ngi koy may chance bi nekk euh, Dakar kon euh, mission locale boobu day am vocation wu jàppale ndaw ñi orienté leen xelal leen mais également fexe ba entreprise yi fi nekk ñu mën a liggéey ak ñoom liggéey ak ndaw ñi ba nga xam ne lépp lu fi nekk rek ci opportunité en terme d'emploi ñu mën ko euh, ñu mën ñu mën def synergie boobu ba ndaw ndaw ndawu Mbàkke nga xam ne dootuñ am yenn jafe-jafe ci mbirum xëy loolu daal mën naa synthétiser gul loolu ci euh, présentation. phase pilote la pilote lañ nekk ci ci ci ci ci kuréel googu. Mhm. fan ak fan la nekk gum et puis yéen bi ngeen installé ba léegi euh, lan ngeen jotagum def ci ci li ñu leen sas ci mission. waaw euh, phase pilote lañ nekk jamono ji yaakaar naa installé nañ ci année bi deux mille dix neuf deux mille vingt bi installé nañ ci dix. mu fekk si beneen bi nga ni installé nañ ko déjà Kaolack yaakaar le ministre Dame mu ko lancé woon ci mais boo xoolee 2020 avec le directeur de l'emploi emploi euh, installé nañ yeneen 10 benn ci Kolda nous avons également euh, boo ni dina nekk am na euh, également mission locale. yooyu ndaw bu fa dem. Mhm. dañ lay jox xëy wala dañ orienté ngir nga am xëy. waaw maanaam xam nga vocation première nekkul ne da ngay ñëw rek ñu jox la xëy déedéet. lan ngeen def conseil. dinañ la dinañ conseiller orienté def li intermédiation sur le marché de l'emploi maanaam bu ñu nee intermédiation nag mooy dinañ xool entreprise yi nekk fii ci Mbacké entreprise yi nekk fii ci département bi dinañ xool yan mooy lan mooy potentialité en terme de recrutement ñu dem waxtaan ak ñoom gisee ak ñoom maanaam li jëm ci lépp luy patronat ñu waxtaan ak ñoom xool ku ci nekk capacité recrutement ban la am ak yan mooy ay opportunités yi nga xam ne mu koy euh, am na ñu xol ni ñuy waxtaan ak ñom ba nga xam tay jeune bo xam bëgg nga information bob ñu mettre ko à ta disponibilité mais également ñu xol ni ñuy def ba jeune yi nga xam amna ñu niveau u liggéey jeunes yooyu ñu placer leen ci entreprise léegi bo ñëwé ci département bu melni Mbacké mhm. xëy na peut-être amna ay département yo xam ñu ñoo opportunité ci walum usine ak ay barabu liggéeyukaay mhm. mais yeen bo leen sampo ci département bu melni Mbacké te ngeen def intermédiation entre ndaw ñi ak kuréelu liggéeyukaay yi. Mhm. est-ce que seen liggéey amul euh, mbir mo xam da koy gàllankoor dès le départ parce que boo bu liguey kay ci département du Mbacké quand même dañ koy compter bariwul. waaw xam nga euh ci suñuy ci ci ci li nga. xam ne aussi ngeen orienté ba ci beneen région jël ndaw fi yóbbu ko ci peut-être Tamba wala je sais pas. non maanaam tay bo xolé liñ ci djublu moy li nga xam fi amna fi ñu fexé ba jeune yi fi nek ñu jot ci. mais da ngay xool ne tey euh, bu fekkee ne am na entreprise yu fi nekk day bokk ci suñu mission ñu dimbali leen ba ñu ñëw ci li nga xamante nii mooy ñu mën a jël ay ndaw que sa soit muy stage que sa soit muy ay contrat que ça soit leneen mais yemul ci loolu kese yemul ci emploi salarié kese mais dafa bokk également ci entrepreneuriat donc du loo xamante ni defal sa bopp defal sa bopp voilà maanaam du loo xamante ni dañuy jël rek ndaw yi ñu ne leen ah ku ñun daal dañ leen di defal ay contrat dañ leen di defal ay contrat mais day bokk ci ndaw moom nga tàggat ko ba nga xam ne moom dina am compétence dina am habilité wu moom ci boppam mu mën a demal boppam wëral boppam. Mhm. même bu fekkee ne yow joxoo ko dara directement di nga ko jàngal niñ niñ mën a nàppe. Mhm. sëñ Bass est-ce que associé nañ leen ci euh, samp ñiy samp kuréel yooyu euh, ci biir euh, gox yeeg gox goxaat yi rawatina ci biir département lu Mbacké. merci merci Jo. donc euh, euh, dès que développé par rapport la mission locale bi nga au niveau du département de Mbaké, j'avoue que il y la deux jours la la information malheureusement ah que lui c'est un père président de conseil de jeunesse mais. Euh, mon nañ les rumeurs au niveau de Touba qu'il y a une mission locale donc pour la jeunesse du département de il y a un de, de, leurs directeurs qui m'avait saisi en l'occurrence Khadim Silla mhm. il y a de cela pratiquement un mois j'étais à le jour même il m'avait parlé que le directeur lui-même va va vous contacter d'ici peu mhm. euh, mais ba euh, directeur bi directeur de l'emploi directeur de l'emploi c'est point focal bi la première fois ñi ngi soog mais il euh, mais y' a un collègue du conseil de la jeunesse c'est xamné c'est collaborateur la mom jël na téléphone am woma ma prévoir rencontre de mise à niveau de partage par rapport à la mission locale bi donc ce qui veut dire que au moment où je vous parle man xawma les tenants et les aboutissants de cette mission primo. Mhm. secondo euh, monsieur John dafa développer na sank wax na ni dañ ils ont là en tant que facilitateur donc d'emploi, fexé ba jeune yi nga xamanteni ni ñi ngi ci département bi bëgg di wut liggéey compétence yi ñu am ñu xool entreprise yi nga xamanteni mën nañ leen offrir ñoom ñu nekk le trait d'union entre les jeunes ou les femmes ak ces ces ces ces PME ou autre PMI. Euh, ma koy wax ni yooyu yëpp c'est bien beau mais ñun la jeunesse vous savez ce ce ce ce qu'il en est réellement dañu yàgg a gis ay genre projet yu mel noonu. on l'a vécu avec l'ANPEJ on l'a vécu avec DER même bu fekkee ne si yeneen fànn la parce que moom wax na ko car ñoom c'est pas du organe boo xam ni quand même dañu yor ay financement des finance ay jeunes yooyu mais dañuy accompagner dañuy orienter loolu c'est bien euh, di insérer nous c'est ce qu'on attend mais. Euh, ils sont en train de rater le début c'est-à-dire euh, boo ñëwee di jàppale nit et en amont intégré au ko ci circuit la da nga da nga da nga da nga bëgg voilà euh, mission bi venue lay voilà nous lañ koy on va la piloter ainsi ni ak kii ak qui, ak donc je pense que ni man je n'ai rien contre monsieur John, mm-hmm. mais une mission locale installée dans le département de Mbaké, ce n'est pas ma personne qui me fait parler mais j'aurais bien aimé qu'elle soit pilotée Nous avons ko jeune qui est dans ci département de Mbaké que ça soit muy un allié de du ministre un allié du ministre du directeur mais na nekk jeune bo xamante ni département bi la xam les rouages xam li nga xamante mom la jeune bi c'est pas c'est pas ça ne devrait pas être xam tamit lool <laughs> boo ko kii ça ne devrait pas être un poste politique non du poste compétence bi fu mu mënti jógee war na mën a mhm. ak ndaw yi fi nek man j'aurais compris ngane ma mhm. man en tant que président d'une structure de jeunesse mhm. au niveau départemental yeguma associé au ma mais bo waxé né ndaw su département bi moom moo ko war je, donne, mon point de vue sur ça. point de vue. Mhm. parce qu'on parle juste d'une mission locale. et quand on parle de local on on, prend compte de de de de yi nga mhm. euh, euh, réalité bi am ci localité bi. un jeune de Touba jeune bu dëkk il est bien placé et les compétences sont là puisque puisque vous parlez de compétences, je vous n'a une compétence yaa ngi donc ce que vous wax c'est que peut-être que ne bañ pas sur le plan politique mais moi je vois que même au sein même de ces recrutements et de ces gens-là qui sont en train de placer par-ci par-là c'est des recrutements purement politiques et pas ah. basés sur la compétence j'en ah. sais quelque chose. ah ouais ouais c'est ça. Mariama Diop de femme waaw relancer ci ci Bassirou fu mu wax rek. parce que bu ñu waxee ay mission yoo xamante ni c'est politique peut-être que moom fi mu fi mu jeexalee foofu lañ koy gën a séentoo muy nga jël ko peut-être jox ko benn ndaw boo xamante ne mu ngi mu ngi ci département bi. Mhm. parce que d'habitude par parlo, foofu lañ koy gën di seetloo parce que yàgg nañ ko am waaye leneen li nga xam ne moom a bett ci mission. ab jon bi nga xamante ni mooy lu bees mooy le fait que mu manque communication en plus aussi ñu mën ko jàppee benn doublon euh, excusez-moi nous mën ko que ah, ah, ah. nous doublon ni parce que problème de la jeunesse je pense que depuis 1960 depuis son indépendance ba président de la République nous xam le problème de l'emploi des jeunes dafa donc nous peut-être rompre ni nga non parce que d'habitude ay a lañuy ay DER ay mission conseillère

di bàyyi ay DER di bàyyi ak leneen ak leneen parce que jeunes yi am nañ compétence am nañ xam-xam jàng nañ diplômé yaa ngi fi donc bu ñu tegee peut-être des industries comme à Touba dina ci am trois catégories de population mooy ki nga xamante ni jàng na ba am lijaasa ki nga xamante ni nii euh, am na xam-xam te jàngul muy entrepreneur lambda bu ñu mën a jël ak keneen koo xamante ne xëy na dina jóge ci biti ñoo jàppale leen mu partager ak ñoom expérience bi boobu Basirou Sène moom laa koy laaj. ok je peux répondre d'abord. donc avant avant Basirou di mhm. ñëw. foo mhm. ma am lu ma leeral. balaa d'accord euh, amalgame di am. voilà amalgame di am. Mhm. Euh, d'abord damay commencer ci euh, problème mu manque d'information bi ngeen wax parce que dama jàpp ne Bas xam nga ne man je suis conseil communal de la jeunesse de Ndondol comme yow. Euh, jàpp naa ne aussi nan la organisation jeunesse di doxe benn deuxièmement xam ni administration di alors euh, sur la question de l'information j'avoue que c'est la première fois c'est la première fois ñuy communiquer sur le projet au niveau local parce que lu tax fi amay du point de vue administratif ndax euh, gouverneur de nekk préfet nekk bu fekkee nag suñu kilifa yónnee na euh, maanaam note jox ko jox ko gouverneur gouverneur mooy amplier au démembrement yi nekk ci suuf ñun balaa ñuy dugg en contact ak yéen yaakaar naa loolu gouverneur def na ko lettre boobu tey euh, ba ni démb ci information yi ñu am jaar na ci préfet jaar na ci sous préfet yi dem na ci mairie yi te jeunesse bi également war nañ ci jot. pour ngeen dem dem fekk len non manam pour ñu pour ñu jox leen information bi que ni mission locale dinañ ko installé. Euh, à Touba non. c'est pas encore c'est pas encore le cas côté jeunesse. d'accord euh, mën na la nangul lolu bas mais itam ma xamal la ne amon na ko xamante ni ci ñun la bok dëkk fi ci Mbacké ñu japp ne ci jeunesse la bok kok lañ joxoon la charge d'entrer en contact avec. mouvement de jeunesse yi mouvement de femmes pour informer les d'une possibilité de les rencontrer parce que nous Nous ñu travailler a que ça soit inclusif et participatif inclusion bob moy, ñun nous nous rek inclusion d'abord ci benen benen fan bi boo man mi je suis de la région de Djourbel, ndondol gi laa dëkk mhm. kon contexte local bi amne na lu ma ci xam mais pour vous dire que comme li nga don tey mission locale bañ nekk ne man kese maa fay doomu maanaam koo xam ne dëkkuma jur dëkkuma commune Mbacké mm-hmm. ña fa nekk ñëpp waa Mbacké lañ d'ailleurs suñu directeur lim ñuy wax mooy ku nekk na tekkee goxam ku nekk na tekkee goxam agent bu fa ne mission locale bu ubbee sa dëkk yéen yéen dem gérer mission locale ba nga xam ne di ngeen mën a am complexité complexité boobu mais également la connaissance de la problématique réelle du milieu kon loolu aussi dama bëgg mu leer ci ñëpp que ni. Mhm. ñi nekk je suis une personne ressource koo xamante ni xëy na domaine bi bokk naa ci ñi nga euh, euh, euh, projet bi ma dans l'organisation, nga installer mission locale bi. man loolu moo fay sama rôle. aspect bi may may may rek ma ma ma ma alors je nee na ndax doublon ñun ñëpp xam nañ ne euh, président de la république ni mu séddalee mbir mi mooy ANPEJ day gérer les jeunes mais boo seetloo am na couche boo xam ne dañ koo bàyyi en rate. muy muy ñi nga xam ne weesu nañ 35 ans comme man comme ñeneen ñi képp koo xamante ni amoo 35 ans mën nga dem ANPEJ mu jël en charge sa préoccupation mais ku weesu 35 ans kan moo lay jël en charge bu boobaa day compliqué alors. Si booy Sénégal boo jàngee tu as un cycle normal ay 30 ans 35 ans ngay toll ci out xey légui bo tolo ci phase boobu non ñu bëri la wax ñu bëri dañuy dem ba trente ans normal, na non non non non non non ok d'accord, normal, ci lolu écart de langage mais dama la bëgg wax né dama la bëgg wax ne bo né am ngay ci wala même nga bëgg euh, def requalification professionnelle wala nga am jafe-jafe peut-être ci euh, ci ci am xëy boo demee ba weesu 35 ans kan vous lay jël en charge. mais du cible boobu moo leen concerné ci mille. si parce que dama la mission locale en même temps mu des jeunes et des femmes. L'emploi des jeunes et des femmes les jeunes c'est en dessous de 35 ans. effectivement mais donc mais est ce que vous ngeen une cible plus de 35 ans kon. waaw moo tax ma bëggoon question parce qu'en même temps il donne mission locale mhm. y a une charge de représenter la direction la direction de l'emploi au niveau local ah, d'accord ok un bras technique de la direction tout ce que nous faisons au niveau au niveau au niveau central dañ koy defaale en même temps mm-hmm. que ça soit li nga xam collaborent euh, day jëm euh, dans le cadre de la convention état national employeur dañ ko fiy def convention yëpp yi nga signe au niveau central démembrement ou association yooyu dañuy la convention au niveau local mm-hmm. juste pour mané la direction de l'emploi la bo xamné dañ koy yobbu ci gox goxaan ba nga xamné ku service yi nga xamé offrir nga au niveau local mm-hmm ci côté euh, euh, entreprise yi nee na ma xëy na amuti entreprise yo xam ne mën nañ fi euh, euh insérer ay jeunes mm-hmm. mais bu fekkee ne entreprise yi fi am mënuñu insérer ay jeunes mais ñun day nekk suñu devoir ñun ñu accompagner entreprise yooyu ba ñu mën a insérer ay jeunes kooku aussi day nekk suñu devoir est-ce que identifié un potentiel d'entreprise yoo xam ne mën nañu jël un maximum d'emploi possible ya yan secteur ñoo fi employé xam nga xam nga xam nga moom daf ma dafa dafa poser yeneen question mhm. pour ma wax ko ne ñun nous sommes en phase d'installation nekkaguñu di opérationnaliser maanaam liggéey bi commencé guñ ko ndax ñun dañu nekk di installé wu di xool ñan la ñu war a liggéeyal maanaam ñi nga xam ne ñoom la ñuy wax les partie prenantes mhm. dañ commencé ñun à peine nos locaux ñu ngi leen di installé installation yi même pareegul moo tax ñun balaa ñuy dem di woon nit ñu ne leen kaay leen il faut ñu toogandi ba pare waxtaan ak ñi ñu war a waxtaan préfet mën ci joxe ndigalu aca déroulé leen préfet mën ci wax ni ah ñii kat ñi mooy ñan présenté ñu askan bi ñun ñu mën doog a déroulé. donc nekkul ne koy xaar kañ. en tout cas l'opérationnalisation bi kañ lañ. en tout cas na la annoncé na la sànq que ni préfet woote na CDD. CDD boobu bu weesoo dinañ am ndigalu kilifa gi pour ñu doxal mais bu boobaa aussi kilifa gi dina joxe orientation. dina joxe orientation ci nga ci ñi nga xam ne noonu la bëggee ñun en même temps ñu doxale noonu la bëggee ñun ñu ñu ñu wëyale liggéey bi mhm. mais bu fi mu toll nii ñun xam nañu yan organisation ñoo nekk ci biir Mbàkke parce que ba ma ñëwee ba léegi aussi ñu ngi liggéey ci loolu Madame les parties prenantes ils sont intéressés Le conseil départemental de la jeunesse fédéré toutes les associations de jeunesse au niveau départemental par exemple premier support un premier partenaire au niveau départemental ça devrait être le conseil départemental avant même les autorités siège attendez attendez côté le sommes une option première Nous notre collaborateur direct bu buñ le comité de pilotage Nous avons comité de pilotage Nous nga les orientations et la stratégie du projet mais dans cette phase nous sommes en phase d'installation Nous matériel la ñuy matériel di installer un comme mën nañ jàpp ne bii seen. foofu laay foofu rebondir directement xam naa sa question baal ma tontu directement <laughs> parce que euh, il a parlé tantôt que ni ñoom déjà il était sur le terrain si si biir ay waxam ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi doon repérer ñi ngi les PME ak yenn entreprises yi nga xam ne ñi ngi ñi ngi dans dans le département pour éventuellement mën a collaborer ak ñoom. Mhm. c'est c'est c'est dans ces dires euh, wax nga ko ko foog naa ne ah, li may wax rek en amont donc ñun on peut être des, des, ay, ay ay facilitateurs. On a, on a vécu l'expérience, le CDJ, avec euh, l'ARD de Djurbel. Je donne juste un exemple. L'ARD, si nous sommes en partenariat avec l'Union européenne, soxla ay jeunes 150 stagiaires le, projet des migrants de retour ils ont sur un contrat de 12 de de mois ñu ont identifié euh, ñu entreprise. a identifier ay entreprises yoo xam ne les jeunes lañ ñii ay mais amuñu te bëgg nañ aussi fexe ba booy am ay stage parce que def nañ ay formation te durée gu seen ay stage mais dañu saisir hmm. la plupart de euh, entreprises yi nga xamante ni ñoom lañ ñoom lañ déniché fii au niveau de Mbacké ñun ñoo leen ñoo leen ñoo ñoo leen ñoo leen jox euh, cette base là wax booy dem leen ngeen déposer c'est cent cinquante jeunes au niveau de la région de Diourbel hmm. yoo xamante ni depuis trois mois ñi ngi am un minimum de plus de quatre-vingt-dix mille en tant que stagiaire di am expérience ñu leen préparer pour l'entrepreneuriat. C'est la réponse rebondir la question bu parce que l'entrepreneuriat, il la dëkk bi donc si vous entrepreneuriat aussi Vous pouvez entreprendre et ay moyens aussi di nga financement. tout à fait di nga xaar financement président loolu comprendre ñu bëri dañuy wax il faut arrêter les financements non arrêter parce que xale bi dem mais le format bi ñukoy défé aussi. format bi voilà si laay ñëw Motax mané euh du c'est pas mal c'est c'est format bi c'est le format cité qui à revoir xam nga motax tu finances Ablaye une fois deux fois trois fois Modou est à côté du gis dara lan motax? tax day financer Ablaye xam na ma suis le président CDJ xam naa ki ANPEJ mané ko waa légui déposer booy bi sama boy la ñu ñu tenir projet am. DER ñëw Ablaye dem gisat euh, un leader politique koo xamante ni DER jox na 10 millions pour mu financer ñu financer wat Ablaye day lekk du du du investir amul benn ambition maintenant qu'est-ce qui empêche ngeen def benn guichet unique parce que emploi mhm. ak euh, jeunesse depuis mhm. ñu dissocier ko mhm. dañu dañ problème yi dafa dafa gën a dafa gën a accentué waaw ñu def benn guichet unique structure de financement yëpp wala benn base de données unique

Mhm. pour lui mel bañ dal entreprise n'existe que dans la tête de ceux qui ont ces entreprises parce que am des GIE euh, am nañ papier mais sax local def activité. Mhm. bu nekké tok ci seen ay bureau seen ay di di dem di répertorier di bind am temps alors que kooku kooku noo koy wutalee noo koy boolee ak jeune boo xam ne dafay bëgg emploi jeune boo xam ne dafay bëgg fu muy ñëw di renforcer capacité am pour que dans un futur proche mu mën a bari def yëfu boppam. président bu dee question la mën naa la apporter réponse bi de manière très euh, simple. Euh, bu dee rek mën nga ma may ko mu mu mu addu ci euh, ñu continuer. xam nga président xam nga président man mhm. dama jàpp ne en tant que jeune. Mhm. parce que mën naa jàpp ne vous êtes dans votre rôle. parce que man bon d'accord avec sa position vous êtes dans votre rôle. mais dama ne problématiques problématiques mais notre préoccupation majeure en tant que jeune de la ville euh, de la ville de du département de Mbaké, ça devrait être ñun rôle, nous nous def mission locale nous nous nous parce que nous départ nous, option ce n'est pas de venir nous, en tant que centrale, nous de régler les problèmes de non. L'option, c'est l'inclusion et la participation de la Inclusion, je Parce que moom dafa vais vous inclusion moi je les acteurs mais nga xam nga man la les mhm. la nit du parce que mon administration là lay wax man waxuma la non non mais may ma mais aussi euh, tantôt euh, tantôt il a parlé de il a non je pense que Basirou comme comme comme comme yow John mhm. euh, loolu peut-être c'est les préalables loolu ah, waron na am avant donc on nañ ci discuter peut-être avant mais amul mhm. mais je pense que pour le moment comme on parle de 300 millions

bu ñu boo leen génnee wala bo leen dématé ñu mëna wax ci ci li nga xamante ni moom mooy forme bi ak fond bi. pour man débat bi fofu la quoi. Bah, man sincèrement lolo loolu laay dans le vif déjà. seen lan lan moo seen attente par rapport ak mission bi. wax wax naa il faut ratifier le tir par rapport ak ni mu daan demee première chose bu jëg si ratifier le tir moy nañu fexé ba. ñu bañ a éparpiller les financements un peu partout ñu central ñu centraliser ko ci benn base de données d'abord ensuite yéen ñëw ngeen vous êtes euh, une mission boo xamante ni donc membre même de l'État toujours. Mhm. donc euh, li nga xamante ni dañ koy jël yóbbu ko war ko def ANPEJ wala war ko def DER ci yoo structure yoo xam ne amul ci département par exemple ñu ñu def de sorte que structure étatique bu fi nekk te gën a jege les jeunes et les femmes lu fi mën di am ci éventuel financement yooyu ñuy wax 350 milliards yooyu quand même portage bi jaar ci jaar ci fu mel ni yéen mais le problème bi du foofu xam nga loolu cette solution yoo xamante ni bien avant ñuy wax waxu mission bi ñun ñi ngi doon xalaat yu mel noonu dafa war am au niveau de tous les départements et même au niveau de toutes les communes foo xamante ni boo jugee jeune bi bu jugee dem fa maanaam ay orientation yu yu gaaw ay raccourcis yu jege dañu bàyyi ñun lourdeur administrative yi si teg si procédure yi parce que la plupart du temps foofu la ñuy bloqué euh, ñi nga xamante ni ñoo ko gën a soxla et pour votre information wax nga ne xam nga xam nga Bawol mais quand même yàpp naa la ñoo gën a xam aussi quelque part donc mmh. pour dolli la Mhm. vous évoluez dans un milieu informel. Mhm. donc il faudra tenir compte de ça. Mhm. que di laaj ay CV. andi len ma CV <laughs> nangam pour nous def ci li pour nous orienter le feulé. Si vous ne si pas bobu déjà vous allez euh, rater le départ donc il faudra tenir compte de de de de situation ou bi ak l'informel dafa am lu ñu soxla sa ministre amna lu par exemple c'était un grand coup mais depuis lors dañu gis ne dafa sànbaay total au niveau du département de Mbacké bi ñu ko jàmbatalee avec le conseil communal de la jeunesse de Mbacké ay boo yoo xamante ni tali bi lañ nekk di lang mënuñoo am benn soixante wala 100000 buñ amé permis de conduire ñi dawal ay moto Jakarta ñu leen di japp parce que amuñu légalité def ko mais mu organiser fi benn formation de 400 permis de conduire loolu tout le monde avait applaudi maa ngi woon ci cérémonie bi mu doon joxe ki, xam nga booy yu si bëri bañ ci jugee nañ jóge jakarta yi ñii di ñafe di économiser man j'en connais ñoo xamante ni ñi ngi seen ay taxi bopp léegi xam loolu création mhm. bëgg ñu taxaw si si ñun on n'a pas besoin d'aller dans les bureaux et autres yow xam nga jeune nga ñun ce qui nous intéresse le plus bureau d'ailleurs amul sax bureau moom lañ doon wax sànq amul benn bureau boo xam ne uh-huh. mën nañ fa insérer sax nit ñi amul mooy industrialisation bi nga wax sànq donc a rien mhm. donc fekk si leen nit ñi ci liñ nekk mooy informel bi Johanna, joxe un benn exemple boo xamante sa ministre si ñu si hum. mais na ak dans le monde rural allez dans Sadio allez dans Sadio ba nga fekk si bi ndox bu neex la am ba da nga hum. fekk ñu wax tomate mais jeunes yi ñu ngi xam la problème du problème du problème force mais seen problème mooy nan la am moyen bu ndaw a ndaw a ndaw ba mën a mm. xëcc ndox bi ba mu egsi si ñoom mm-hmm. lan noonu lañu am moyen bu ndaw a ndaw ba mën a aménager seen périmètre bopp bañ di nekk ay surga waat si ñeneen ñi mm-hmm. loolu lañ leen wax ngeen dem ngeen def ko c'est pas donc hmm. toog fi di xam nga kooku defal du am koo koy booleel ko ma la pas besoin de ça parce que même bu dee cent mille xam na ne mën trois hmm. Hmm. donc accompagner les c'est ce qu'on attend voilà on attend du concret vraiment fi parce que euh, depuis 2012 euh, nga rebondir politique yi bëri na mhm. agence yi aussi bëri na comme ni ko mhm. soxna Mariam waxe mhm. vraiment buñ fi fiy agence yo xamné également day nek sur les mêmes bases que ah, budgétivore boole ci di lekk sur les mêmes bases que yi fi jitu peut-être du dal xel quoi mais est-ce que yéen am ngeen spécificité par rapport ak ñu fi jitu ño xamné ndaw bi dina ñëw ci circuit bu gatt ñu mun ko duggal fenn wala ñu mun ko orienter fenn foo xam dina mën a dem daan dooleem waaw euh, déjà euh, damay rafetlu xëy na ni entamé débat parce que débat bi bu sur les questions techniques. Madame mais hein? technique mais. Euh, non non madame madame madame dama dama dama dama ci question on veut des réponses concrètes aussi. effectivement parce que daf may ci sensu. parce au delà de ñun ndaw effectivement dama sens boobu. wala orienté na ma sens bi nga débat pour ma wax concrètement ñun nan lañ gissé ban appréhension lañ ci am ak ñom ñu ñu xalaate ñom liggéey ak ñom parce que waxna ko sank que ni euh, comité de pilotage bay am mom day nekk partie prenante comité de pilotage bob, nga xamné bu ñuy xalaat ñoy xalaatandoo stratégie ya ñuy tek motax tax xol aussi ci dispositif bi day am li ñuy wax incubateur communautaire euh, euh, incubateur communautaire incubateur bobu lan moy doon rôle am mooy indi loo xam ne nouveauté la ki nga xam ne euh, bëgg na entreprendre am na idée de projet wala sax amul idée de projet mu ñëw conseiller en entrepreneuriat yi waxtaan ak moom xool est-ce que moom lan la bëgg parce que aussi Bassirou ki nga xam ne képp koo xam ne da nga ñëw ne emploi salarié nga bëgg kooku faw nga produire CV kooku moom ala kul xaal la ndax jàpp naa ne aussi ci Mbàkke am nay intellectuel kon ñun aussi bu ñu lay ci base de données locale bi mën nañ la enregistrer comme koo xam ne main d'œuvre la mën nañ la enregistrer comme koo xam ne da nga bëgg entrepreneuriat maanaam danga bëgg yëngatul sa bopp kooku mën nañ la enregistrer ci loolu ki nga xam ne nag main d'œuvre la maanaam daa bëgg liggéey ci euh, yenn entreprise ku koy employé pour mu am yoo xam ne soxlawul euh, euh, soxlawul qualification kooku mën nañ la enregistrer sans CV. ci base de données locale mais mais ki nga xamné da bëgg compétir au niveau de Mbacké mais également compétir ci offre yi ñuy am au niveau national pour ñu enregistrer ci base de données bi faut sa CV ñëw sa carte d'identité ñëw sa euh, sa diplôme parce que lolu moy tax aussi nga am yenen chance yo ramener c'est au niveau national euh, pour ma ñëwaat ci centre d'incubation bi xam nga tay xam nañ né entrepreneuriat ñu bëri parce que man def naa ci étude ci euh, département Diourbel ñu bëri ñi nga xamante ni financé nañ leen ñu échoué xam nga lan mooy tax ñu échoué il mm-hmm. y a les facteurs socio-culturels yi nga xam ne dañuy agir ci nit ki nan lay doxalee mbiram nan lay doxalee entreprise am même buñ la financé bu fekkee ne yow lañ lay financé après doo ko dugal ci projet bi ndax dañ ci euh, da ngay am foo koy dugal que ça soit ci euh, ay xew wala nga nga nga def détournement d'objectif loolu projet bi day échoué mm-hmm. loolu xam nañ loolu mais fi ñu bëgg a jëm ndaw ñi mooy day am coaching rapproché am monitoring nga xamné mm-hmm. jeune bi bu bu dès l'instant de l'identification de l'idée de projet ñu accompagner ko durant toute la chaîne de valeur da ngeen di financer aussi wala non financement yi tay président de la république wax na ni DER la jox la plénitude de de financement moy milliards yi war a non lolu nak ñu ngi liggéey adopté wuñ schéma parce que président de la république dafa laajte. adopté une benn schéma par rapport ak 150 milliards yooyu. waaw la laa lay bëgg mhm. dama la président de la république dafa demandé suñu ministre. ñu jox ko ay ay ay ay aïe ñu ñu wax ko ban stratégie ak lan lañ xalaat ne moo mën régler la situation ñun nous ngi ciy liggéey dina am loo xam dinañ ko président de la république mooy xool ci ay prérogatives am ku nekk mu ne la ah lii laa lay jox pour nga yeggale sa li nga def. mais ah, ñun quand même. Mhm. ci dispositif yi ñu tek président de la république ne li mën na ci li nga mën na mën dimbali. comme comme par exemple. non mais centre d'incubation yi ñu wax nga milieu bu mel comme Mbacké Touba milieu yi nga comme lim ko informel bi daf fi am doole. ñu nous ba ñu récupérer ñi nga par exemple ki nga xamné euh mu def ci Jakarta ki mais ñu ba entreprise Jakarta Jakartaam mom kessé mo ci né di def auto emploi ñu fexé ba mom mën a employé ñenen mais koku il faut ñu dimbaliko par rapport à un coaching rapproché à un monitoring. Mmh. ba nga xamné lepp lu mu ciy def suba dañ koy yób dinañ ko yóbbu vers la formalisation de l'entreprise. damay damay damay may ñew foofu rek euh, si li ngay défendre ni parce que dafa lay renvoyer war si li maré ma poser woon au départ moy c'est c'est doublon inutile. au même moment yéen a ngi mettre des missions locales. Euh, progressivement dans si si département yu bari si Sénégal. Mhm. au même moment ministère de la jeunesse commencé na accès ses maisons de la jeunesse tay xawma ma suba la wara def pose première pierre bu pikit war ko def mhm. et li nga développé fi yépp pratiquement dang koy fekkaat ci maison de la jeunesse pour te buñu renforcer won peut-être et retenu mhm. pour pour si pour si projet bobu encore. te buñu renforcer won woon. peut-être lan la doon c'est pas difficile. ñu boole lépp état la pourquoi lu bàyyi le ministre moom la si laay si laay ñëwaat toog naa fi émission wax ko c'est-à-dire gis le ministère de l'emploi tant que ñu ngi koy dissocier ak ministère de la jeunesse cafouillage bi dafay continuer di am. parce que ku nekk loolu loolu cest à le ministre le président lui-même a ce problème. a ce bi mu joxee les directives seen seen ministre ne ko mu defaral ko euh, plan. ak euh, ses conseillers en quelque sorte si un conseil des ministres balaa mars bi les mêmes directives types ministre de la jeunesse oui donc confiance day continuer di am. Hmm. néna la li ngeen de la jeunesse mi def lu mel ce que je prône moins hmm. pour économiser et du temps et de l'argent et plus d'efficacité nañu bolé jeunesse. mais emploi ak lepp luy financer jeunesse ñu boole ko si benn ministère ñu am benn kilifa comme si laajte ñu yokkal ko si aussi que ni Mara mi nga xam ne ñëwoon na fi temps yi passé rek am na Mara job am na bureau bu mu doon wax bu mu fi annoncé woon hmm. ni ñu ngi koy tëjji fii à Touba te boo xoolee même hmm. perspective la ak kii li muy def wala bu nekkul sax moom hmm. donc ah mom la donc loolu noonu yëpp comme ni ko Bassirou Sène waxee je pense il faut que ñu accepter que ni li li fi am li ngay li ngay def nii ak li xew picking ak li fi mësoon am ANPEJ ak DER ak yëpp c'est à peu près la même chose. te ñu ngi mm-hmm. nekk aussi ci mm-hmm. ci ci ci ci ci ci résultat parce que jamono ji boo xoolee sortie jeunes yi ak besoin réel emploi bi fi nekk nekkuñu ci problème de temps nekkuñu ci problème dañu nekk ci loo xam ne dafay yàkkamti donc il faut que lépp lu ñuy def ñu def ko ci efficacité teg loo xam ne jeunes yi dañuy gis parce que lépp lu mu ci mënti doon rek amoon na fi la ñuy wax ñu Sénégal duñ tàmm loolu. Mm-hmm. projet bu ñëw lu mu mënti doon amoon na fi jaaroon na fi cinq ans jeex nañ ko beneen projet ñëwaat. waaw xam nga xam nga euh, dafa am loo xamante ni dans notre discours en tant que jeune leader dans notre discours au lieu que mu mu mu mu inciter les jeunes. à à prôner wala ñu inciter les jeunes ñu dem ci structure yooyu xool yan opportunité lañ fay am xam nga lan la leen di yóbbu non c'est la même chose kon du ma fa dem parce que arrivé na ñu bëri ñoo xamante nii tey xam nga lan moo leen lan moo lan moo. lan mo len xagnon ay opportunité yu bari parce que da ngay nan ah état liggéeyuñu état defuñu fi dara manam da ngay tok ci lamantewu ci sa sort tok sa kër bu ko defee do ci génn pour man xamal lan la japp que ni jeunesse bi tay ci loolu lañu wara taxaw lepp li nga xamanté ni état mettre nako en place muy dispositif man jeune dina ñëw présenter wu ba xol ba xol est ce que lañ ma wax né mën na ko fa am est ce que la am du deug balaa may avant avant avant avant ñuy déroulé nga ne noo échec lay doon bu boba rek mën nga bàyyi sa yoon pour man dama japp né ku nekk rek ñun liñ bëgg mooy ku nekk ñu may la sa chance sa chance rencontrer un conseiller en emploi sa chance rencontrer un conseiller en entrepreneuriat. parce que parce que aujourd'hui mhm. comme développeur. parce que aujourd'hui mhm. parce que aujourd'hui ñu bëri tay ñu bëri tay le fait même nit ki ñëw si yow. xamul yan dispositif wala xamul fan la war a jaar bu utam xëy nga ne ko fii ngay jaar fii ngay jaar xool ay ay jumtuwaay yam am que ça soit nan nga war a binde sa CV nan nga war a binde sa lettre de motivation loolu rek boo ko defalee nit ki rendre nga ko service bu rëy parce que ñun ñëpp xam nañ ne Sénégal tey. Oh, non waa dëgg. mais mais vraiment. non on la même chose. non non non non danga may danga may may danga may may xam nga. xam nga boo mënee ñu regroupé ko. Mhm. loolu. man de vraiment non non loolu sa xalaat la bañu bañoonu ma la loolu. parce que hmm? ku ci nekk aussi. bi bindum CV moom. non maanaam ku ci nekk. dans une dans une zone comme Touba Mbacké. aussi informé réglé woo réglé woo question de l'emploi. dama la jox non non attends émission bi servir euh, de cadre. Mhm. pour vraiment des questions pratiques et des réponses vraiment pratiques. moo tax ma ne la réponse yi lan moo ko tax a jóg fan ngeen bëgg a orienter ndaw yi yan structure ngeen identifier yo xam mën nañ jappalé xalé yi ngir ñu mëna am xëy mhm. dans une ville spécifique comme Touba et Mbacké dans un département spécifique comme Mbacké nga xam bokul bokkul ak mhm. benn département ci réew mi bo démé Thiès y a des entreprises il y a des industries y a des PME y a y a y a tout bo démé Dakar c'est pareil nga dem dans la vallée il y a de petites euh, entreprises yo xam ñu ngi yëngatu ci mbéy mi ak feneen ak feneen mhm. mais fi spécificité moye, amul ben unité industrielle amul mhm. PME amul PMI mhm. ndaw yi lan lañ am le marché occas mhm. maintenant man dama bëggone bo ñëwé fi ci réponse concrète yi ñuy jox nga mëna wax ndaw yi comme marché occas dong lañ amul y a pas d'unité industrielle amuñu lenen ay ouvriers ñoo fi nekk ak ay jaaykat comment ces jeunes là peuvent grâce à vous am njàppandal ci li ñuy liggéey wala ñu am lenen lu ko gën

nous en tant que femmes, lan ngeen ñu indi lu bess répondre ak suñuy attente mhm. c'est ça c'est ça c'est ça en fait la pour quelque chose de nouveau de nouveau et par rapport à ñun suñu contexte sinon nous, ñu une ko mission locale du am ko mu niveau central su fekkente da ngeen ñëw juste pour def la waa qui est def la waa Kaolack di def <laughs> du du xam nga xam nga euh, euh, dama la prémices parce que je sais que ni am na bu may développer tey nga nee ma da ngeen anticiper sur <laughs> li nga xamante nii moom la ñu war a teg balaa ñoo balaa ñoo tàmbali liggéey bi mais dama la ne tey liñ suñu suñu njort mooy ñu fexe ba képp ki nga xamante ni fii da nga nekkoon dans l'informel ñu fexe ba nga nekk dans le formel képp ki nga xamante nii da nga doon euh, maanaam da nga amoon sa sa sa sa sa benn unité di taaba taaba unité boobu. Hmm. unité bobu doxul nim wara doxé mhm. ñu fexé ba sa unité dox comment comment comment ben da ngay ñew tay ci ben entreprise locale ben entreprise locale mu nekk koo xamante ni bëgg na développer entreprise mais amul assez de moyens tay état def ñu dénk li ñuy wax la convention nationale état employeur pour que PME yooyu PMI yooyu ñu jàppale len ci côté ressources humaines ressources humaines boobu fuñ koy outé par exemple yow mi ce, ce, ce ce ce ce ce multiservice par mm-hmm. exemple mm-hmm. amo amo amo amo amo doole pour mën a jël ñoo xam ne dañ la la jàppale te yow sa chiffre d'affaires mën na romb foofu mm-hmm. wala nga yor sa euh, euh, nan laa ko mën a tudde sa fast food pour rek indi contexte local bi tout à fait voilà yaa ngi dégg kooku noonu j'aime ces réponses là kooku noonu nuñ koy dimbalee am nañu euh, aide au PME PMI ñu fexe ba PMI boobu ñu xool est-ce que formalisé na ñu ne ko ah yow kat formalisé nga waaye nag dañ lay booleeg ndaw moo xam ne mooy ñëw di la suivre di la coacher ci sa entreprise boobu nu muy doxee. Mm-hmm. bu fekkee ne dafa soxla ñu accompagner ko en ressources humaines ñu mettre à sa disposition. Mm. jeune boo xamante ni Mbacké la dëkk. te jàng ci domaine boobu. ngeen koy fay maanaam comme stagiaire en partie mm-hmm. en partie. loolu c'est des solutions concrètes. est-ce que sol oh, allez-y allez-y ki nga xamante ni également da suñu yaay booy manam mama yi nga xamante ni dañu yor seen i seen wala seen seen seen ki yoy mhm. di def seen euh, i seen ki ñom seen ñooñu mais ñooñu soxla nañ ku leen dimbali. Mhm. pour que initiative communautaire yoy ñu fexé bu ñu développer wu. ñu fexé ba initiative communautaire yoy ñu yóbbu vers de l'économie sociale et solidaire et dans ce cas dinañ mën a am un peu des prémices yo xamné dinañ créer ay groupement yo ni dinañ am des vocations de création d'emplois. Mhm. Par exemple, tay ñu ñëw euh, euh, euh, fii Touba ñu du moins ñu gis jigéen ñoo xam dañuy di ko jaay kii di jaay ci mbedd mi kii di conseil en entrepreneuriat yi ñëw accompagner leen. Mhm. xool li muy def kii li muy def kii li def. Mhm. nan lañ créer une chaîne de valeur. ci diggante ñett ñooñu. très bien ensuite duñ fa mais dañuy fexe ba organiser leen fexe am un cadre après nous allons avec eux chercher des partenaires yoo xamante ni ñoom ñooy accompagner activité maintenant pourquoi aujourd'hui Jigen gi nekk euh, euh, euh, jiwaalo mën a jël ay produits am di ko commercialiser te jigéenu Mbàkke mënu ko mhm. champ, bu amee Mbàkke wala benen rayon de surface wala seen champ mhm. wala seen champ wala seen champ voilà <laughs> wala mhm. unité yooyu unité yooyu ñun dañuy am vocation Jigen ñi fi nekk wala ñi nga xam ne dañ fi nekk di di liggéey ci mm. côté entrepreneuriat ñu fexe ba seen produit ñu mën ko yóbbu ci grande surface yooyu ñu koy jaay mm-hmm. xam nga maanaam da chaîne de valeur mm-hmm. ci côté entrepreneuriat mais nekkatul ne dañu ñëw rek coaché la waaw sawaay ah nii ngay bindee business plan mm-hmm. non ah. du tout parce que suñu yaay yi boo nekkee di leen di bindloo business plan da ngay perte sa temps. Euh, da ngay jóge théorie bi jëm ci dañuy jóge ci théorie dem dans la pratique dans l'incubation est-ce que ci la bokk par exemple secteur la boo xam ne yéen boo suuraale ngeen ko. xam nga xam nga dans dans chaque dans chaque département dafa am say spécificité. fii lan mooy spécificité bu ñu toogee. non yooyu xëj na président moom ma koy gën a xam ndax nee na ma. Euh, euh, euh, xam na localité bi. Mm. mais buñ toogee ak ñoom. dinañ ñu ne bi ngeen di ñëw fii en tant que structure. lan ngeen lan ngeen waaw lan ngeen. lan ngeen au fait xam nga <laughs> xam nga mais lan ngeen jàpp xam nga jàpp nañ ne. ndaw yi nekk ci biir département dans la région de Diourbel de manière globale. boo demee ci rapportu ANSD bi. Mm. dañ lay naan commerce artisanat commerce ak artisanat bokk nañ ci secteur yi fi gën a dox agriculture commerce artisanat agriculture bokk nañ ci secteurs yi fi gën a dox. kon secteurs yooyu mën nañ sukkandiku mën naa jàppagul en attendant président. conférence moo tax journée la lan ngeen prévoir pour l' agriculture. Mm-hmm. effectivement xam nga du du du du nek ay simulation parce que ñun dañu bëgg a jóge ci simulation. li ñu li ñuy bëgg mooy bu ñu yow concrètement ñu ne ah association des maraîchers bu fi amee. Mm-hmm. wala association des agriculteurs. ñu toog ak ñoom ñu ne leen ah. noo leen gisee ne. non attends attends John là je te continuer. non non na ma na ma na ma na ma may. Uh-huh. non bu fekkee ne bu fekkoon ne da nga bëgg. da nga bëgg ñu leeral auditeurs yi. non non non xam nga dama tax dafa lu tuuti laay dugal. lu tuuti laay dugal may naa moom day ñëw toog nee na day ñëw ba toog. installé wu ak mission bi. soog a xam lan lay liggéey a dem. détecté lan nan la war a liggéeyee ak ñan la war a liggéeyal. <laughs> nee na nee na cest à man dama yaakaar ne en amont dans vos bases de données. Mhm. fii boo fi toogee. tey war nga génne sa téléphone ay solution rek def téléphone ne au niveau de ah, Touba on pré on prévoit de faire ceci au niveau de Mbacké <laughs> bla bla nga ne bu ngeen bu ngeen après avoir conclu bu ngeen conclure si si si si si si yi nga xamante nii mooy nécessité yi war a am fii mhm. loolu moo tax ñu jugé nécessaire une mission locale mhm. mais loolu xam nga ne moo tax xam nga moo tax loolu du am mhm. parce que parce que attends mm-hmm. gis nga gis nga quand même qu'on se le dise parce que tamit duñu nekk fi euh, man ñun au delà d'être représentant des jeunes on sait lu ñu xam tamit ci dëkk bi mm. dire cette mission là sous bi lu ko fonne lu gëna bëri c'est politique Ah ouais Alors, La décision du directeur a été prise de façon très hâtive dans un CDD ah. ici à Mbaké. Ah. Un maire s'est levé pour lui proposer un local. Et hop, il tombe, il saute sur le local. Comme ça, il mm. n'y a rien tout. Il y a rien de sérieux au préalable quand même qu'on se le dit ça non le quoi euh. loolu mooy tax lu bëri du réussir mhm. parce que dañuy une ci benn contexte profiter aussi situation créer une affaire ce n'est c'est pas mûrement réfléchi mhm. là où ils vont travailler dans la cacophonie dans le tâtonnement au finish nit yi frustré wu mooy li ñuy wax nii ñaan boo demee doo am résultat effectivement noonu lay demee parce que li ñuy wax nii wax naa ko sànq ñun on a travaillé avec la RDC on est en train de travailler avec Agri sur le même projet Agri et de façon beaucoup plus efficace et détaillée mm-hmm. def nañ si ay réunion Zoom ils nous ont euh. expliqué sur huit régions la ñuy intervenir mm-hmm. c'est ce qui est sûr mooy ñoom ni ñu pro ni ñu noonu la procéder ñoom ñii sax buñ ko ils vont avoir des résultats may may ko kawe mu tontu léegi xam nga euh, xam nga xam nga jàpp naa ne état xam nga c'est c'est day tëb xam nga fi mu toll nii sur la xam nga fi mu toll nii wax naa ko sànq mi ngi ci rôle parce que booy waxal jeunesse faw nga am noo taxawee mais moom en âme et en conscience tey euh, boo boo boo boo xoolee li ma lay wax bëgguma ñu nekk en contradiction parce que buñu non non waaw may ma rek may ma may ma may ma may ma may ma rek may ma xam nga bu ñu nekkee en contradiction ça veut dire départemental waaw loolu seen siège Touba j'avais une question réponse. non moom xëy na peut n'a pas la réponse à tout ça aussi. parce que moom agent là. xam nga xam nga moom am loo xam ne. xëy peut-être directeur de l'emploi wala le ministre. en personne moo ci mën a Babacar à sa décharge. bi à sa décharge. décision hein? bi la décision je me suis dit oh là là. non Babacar. am la loo la. non am na loo ko posé nga de CDD vite fait un directeur prend une décision aussi active. moi je me suis dit oh là là. Babacar xam nga lan laa bëgg. am na loo xam ne doo président président xam nga fan laa bëgg ñu attardé wu. Mhm. Euh, tey dama jàpp ne yow porteur de voix nga ci Mbàkke. waroo nekk euh, maanaam ci ci ci ci sa message. Mhm. man li ma ci doon xaar mooy nga ne jeunes yi ah yéen kat indi nañ fi lu bees. indi nañ fi lu bees nañ leen dem xool lu bees ñu fi indil. waa déglu ma rek déglu hein? non non parce que non non non maa ngi koy def avec la Jeunes. je je vous en prie je vous en prie partout parce que je, je, ñu convaincre. je je vous en prie may ko mu expliquer la. Euh, gis nga ni nga bokkee ci cadre Agri mhm. Non la laa ci cadre Agri Jeunes. Mhm. Mhm. yaa ngi dégg non non dafa ndànk ñun buñ fi ñëwé. du nekk né parce que on on parle de la synergie des acteurs gis nga duñ nek duñ ñëw di concurrence agricole mhm. ni di concurrence pêche c'est pas le but mais que ces structures là puissent faire une synergie et une complémentarité entre ces structures là dama japp ne nak ñun jeunesse mhm. ñun jeunesse mhm. ci li ñuy gëna xaar ci ñun leader mooy ñu inciter les jeunes à aller voir ces structures là comme ni ngay défé marketing ni ngay défé marketing agricole dañ lay xaar yow aussi nga défé nonu mat noo noo may ma rek nga défé nonu marketing mission locale bob. ba nga ñun ak non wa defal rek non Wa dedet dedet ko xam ndax ne dinañ ci liggéey liggéey bu ay Babacar mom dina fi ñëwaat ak agent mu wax la ne tek nañ yi tek nañ yi te rencontre bi ak ak préfet hmm. xejna euh, euh, dina am évolution yu ah, ah, objectif orientation ak euh, jàppale ndaw yi bu ñu am emploi objectif annuel yi ñu leen assigné lan la. waaw xam nga yéen ngi dem ci dëkk boo xam nga amul amul emploi yéen sas nañ leen chaque at ngeen def nangam nan lañ leen sas. xam nga fi mu toll nii dafa am orientation yu bees parce que président de la république dafa ne ndaw ñi dégg naa leen du man du ñun ñoo ko wax président de la république dafa ne jàpp na ne li ñu doon def boobu ba fi ba nii mën nañ ko yokk. Mm-hmm. mu proposons ñu proposé leen ma ñun population bi di nous aussi ñu ngi teg ay jéego yoo ni tey décision président de la république bu wàccee ñu mën a doxal li ñu mise en place structure yi nag moo quand même. appel au président la moo jiitu moo mujj. moo jiitu mais damay bañ xam nga lan lay bañ xam nga lan lay bañ bëgguma bëgguma def pronostic parce que attends non non defal ndànk defal ndànk xam nga <laughs> defal ndànk yow da nga ma teel def émission bi non defal ndànk xam nga yow xam nga yow da nga ma ne hmm. non attends moom li ma laaj moo tax hmm. def ma ne ban chiffre lan quantifié n'est-ce pas loolu mooy question bi waaw lan lañ quantifié que ne bëgg nañ atteindre atteindre lii ma nee la mënuma la ne nous atteindre cible bi pour le moment. mais mais attends attends il y a des termes de référence pour. attends de référence. Il chiffres. mais en tout cas en tout cas en tout cas en euh, tout mm, non je ne veux pas nous dugg ci des questions politiques. parce que man aussi des questions politiques indi mais Non, je veux prie. de la même manière yi nga identifier secteur qui nga une mm-hmm. à mm-hmm. forte valeur ajoutée de main d'œuvre. Mm-hmm. comme mbay. comme artisanat comme commerce de la même manière aussi un projet buy dugg ci hein, c'est sur la base de TDR de termes de référence Nous, ngi dem ci dëkk boo Il y a tant de jeunes par exemple je donne un chiffre il y a 1000 jeunes vous ñun mission bi ñu bëgg nañ at insérer jeunes at mi ci insérer 400 jeunes euh, ainsi de suite jusqu'à terme mhm. mais nous ñëw déjà un chiffre ci ndaw yi l'emploi, déjà au niveau local nous avons une formation mhm. mhm. et puis vous n'avez pas d'objectif précis donc, il n'y a pas de feuille de route. Il n'y a pas de feuille de route. C'est du pilotage prioritaire. Oui, euh, euh, euh, moi. Mhm. Babacar. On aimerait avoir des chiffres précis, concrets. Babacar, quand moi j'ai pris ma responsabilité de venir ici, c'est pour donner le maximum d'informations. Mais pour moi, non, attends, attends. le maximum d'informations mm-hmm. aussi. Damay joxe des informations qui sont justes et fiables. D'accord, nañ ci yow. a un dégg. Amna yo xamné dépend pas que de toi. Effectivement. Mais quand même parce que on aimerait aussi avoir certaines informations. Yo même si ça ne dépend pas que de toi, xeyna say kilifa waron nañ fexé Bandeau ndaw yi nekk ci département bi am ces informations là. parce que su fekkee yéen loolu Babacar Babacar. Babacar Mohamed la mm, nga jégal non non y' a pas Mohamed uh-huh. dama bëgg nga xam mm-hmm. les questions de chiffres les questions de chiffres C'est pas ça qui fera le travail sur le terrain déedéet. dit? non non attends attends attends attends attends dama bëgg aussi dama bëgg aussi ñu cohérent ci li ñuy li ñuy def. Mm-hmm. tey bu ma fi taxawee ne waaw dinañu recruter 1000 jeunes à Ambaké, xam nga lu ñuy wax hmm. ah moo <laughs> ay chiffres la rek. ah déedéet non dafal ndànk dafal ndànk dafal ndànk dafal ndànk dafal ndànk dafal ndànk dafal ndànk sëñ bi euh, président. Uh-huh. dama jàpp ne. yow ban ban feuille de route nga ngay ñëw day day am chiffre. président déglu ma bu baax ma wax une mission locale dinañ ko. une mission locale la waa mooy defal dank rek. dafa nekk nek bu fekkee sax moom amul peut-être ay ay ay chiffres yoo xam ne mooy attente. ni peut-être 1000 jeunes 2000 wala 3000. mais am nga peut-être loo xam ne tey marainement bu bëggoon a ñëw. mu xam déjà secteur bi nga xam ne moom ma prioritaire li nga xam ne bu ñëwee rek à l'instant mën na ci am orientation bu gaaw donc secteur yooyu lan la. ci ci ci ci loolu lañ doon wax sànq. Mhm. dama ko ne l'orientation prioritaire aujourd'hui que nous avons moi de vers l'entrepreneuriat les femmes vers l'entrepreneuriat je dis prioritaire attention ndax non non mm-hmm. attends attends attends mm-hmm. defal defal mm-hmm. dama prioritairement liñ bëgg je ba ku nga mënal sa parce que nous nañ ci ah, ah, secteur mënal agriculture nous sommes la agriculture maraîchage nous faisons, même si c'est en synergie avec les autres acteurs pour pour pour anticiper sur ces questions même si c'est en synergie avec les autres acteurs l'État c'est l'État qu'on puisse arriver à un résultat bu y ne ci côté artisanal aussi nous avons d'autres collègues qui sont là Nous def en concert nous allons travailler pour amener un résultat Si mm, bu y ne également ci euh, côté Du côté emploi salarié mm. L'ol aussi wax naa bu fekkee ne ci côté emploi salarié la. Mhm. Euh, convention nationale état employeur. Mhm. tey ñu ngi recruter jeunes. Mhm. ay stagiaires di leen di placer en entreprise. ñeneen ñi ñu que di dugal ci yenn yenn kii maanaam ci euh, euh, bu fekkee ne ay entreprise la bu fekkee ne yeneen kii la. tey jeunes yooyu ñu ngi leen di ñu ngi leen di recruter di leen di kii. maintenant ce que nous faisons au niveau central je l'ai dit tantôt nous recruter au niveau central des jeunes mhm. placer les en stage ou en incubation mhm. par exemple un jeune électricien il a ni def na électricité waaye a ay moyens mhm. pour créer créer entreprise pour le moment wala mu ngi d'une école de formation euh, Bim mu d'une école de formation amagul moyen pour démal bopam. mais ce jeune mën nañ ko jël incuber ko li ñu incubation communautaire incubation mooy lan par exemple incubation boobu ci ndaw bu mom def na formation électricité ba pare génn na mais amagul liggéey amul moyen mhm. jeune boobu dañ koy placer ci entreprise boo xamante ni moom day def même secteur bu fekkee électricité bâtiment la pour permettre aux jeunes d'acquérir une compétence pratique ci stage boo xam ne day dañ koy rémunérer yéen a koy fay waaw en en collaboration avec c'est déjà possible tout de suite et maintenant ci seen cadre mission bi buñ démarrer loolu kañ ngeen di démarrer waaw mais moom wax na ko sànq. kañ ngeen CDD. non non non non attends attends euh, euh, kii non y'a une. defal y y'a aussi y'a une précision par rapport au CDD. non non wax na ko sànq ba léegi non baal ma àggale y'a une précision par rapport au CDD. Mm. la convocation que j'ai reçue. Mm. mentionné wuñ fi benn yoon euh, des activités du du ministère de l'emploi c'est par rapport aux directives du président lors du, du dernier conseil des ministres mu wax les préfets et les gouverneurs mais nañu dinañu def ay CDD remonté ko la doléance des jeunes et des femmes jot nañu convocation boobu moom la mais c'est pas lié spécifiquement. non non pas lié spécifique man maa d'accord ma waay ko d'accord ma parlé deuxième ma ne ko peut-être je vais évoquer le problème avec le préfet par rapport à cette mission parce que man jotaguma léegi circulaire bi nga wax ne mi ngi si préfet te war ngeen si jot jotaguma ko bu ma fa demee mais par rapport au CDD président moo ko moo en tout cas en tout cas euh, léegi pour me leeral la ben mbir jamono ji ku ñew ci suñuy locaux mhm. dinañ recevoir sa demande. képp fan ngeen euh ñu ngi euh, en face sous préfecture Ndaam. kon seen liggéey tàmbali na dès le lundi dinañ commencer recevoir. lundi bii di ñëw waaw foofu la Manam, manam, maanaam dinañ dinañ euh, boo ñëwee ba sous préfecture Ndam conseiller ko wax ko lim wara def. lim wara def mais képp koo xamante ni da ngay ut emploi salarié. par exemple mm-hmm. ki ut emploi salarié. Mm-hmm. wala nga nek un diplômé booy ñëw li ngay indalé moy sa sa CV. Mm-hmm. sa carte d'identité ak sa diplôme. lool ngay indalé bu êtes jeune bo d'entrepreneuriat ni Vous euh, dafa emploi salarié dafa soxla emploi salarié mm-hmm. Mm-hmm. bu féké soxla na entrepreneuriat aussi mm-hmm. bu féké Vous business plan mën joindre ci ci idée de projet aussi bu fiche remplir une petite question rek man mi marché ne yeen yeen ñoo marché occas yow da ngay marché damaa bëgg ñu jàppale ma. wala ci sama jaay jën boobu. wala ma yokk ci wala ambulance wala mm-hmm. mm-hmm. ku mënti doon. Mm-hmm. que ça soit ngay yëngul sa bopp. dama soxla woon ngeen jàppale ma nan ngeen koy jàppale dama waaw xam sànq maa ngi doon wax ci incubation. communautaire que ça soit incubation en entreprise. ki ki ki yor taaba taaba di di yor butiku mbagam wala mu nekk ambulance nan ngeen koy incubation communautaire. léegi koy dugal ci magasin muy jaay. <laughs> te moo fi bëri trop déedéet déedéet déedéet kooku bokkul. manam type d'incubation yi boko ñu ok incubation yow ki ma la doon wax ci entreprise. moy mhm. jeune bi nga xamne dafa jang ah, métier amagul mhm. possibilité. exercer mhm. ñu incuber ko ba nga xamne mom bu génné am xam-xam bi. maintenant ki nga xamne ne wa wa wa may ma rek ba ma ci ki ki bu paré mom xam lu ñuy defam mom bu paré dañ koy essayer maintenant accompagner ko vers la création de sa de sa propre structure manam entreprise su xam nga jeune bi nga incuber tu es sûr que nous avons mhm. confiance pour créer créer wu mhm. maintenant on l'accompagne avec avec nous. Mhm. ba nga xamné ne dinañ mu matériel. que ça soit un financement matériel que ça soit un financement euh, en rémunération. très bien émission géew bi lañ nekk mbok yi di ci and ak euh, Bassirou président conseil départemental de la jeunesse ak également Pape Abdoulaye euh, John conseiller en emploi nek ci mission locale pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes ci département de Mbacké ànd ci également ak suñu chroniqueuse bi di Marema Diop bu RFM ku ñu bëgg a dab ci waxtaan bi nek ndaw nek mag nek jigen mun nga ñu wo ci 88 628 48 86 parce que am na ay préoccupations yoo xam ne dañ leen ko yóbbaaleel mais am na yoo xam ne yéen yéen a ko mën a porteel seen bopp ngeen laajteel ko mhm. nga xam ne mooy Abdoulaye Dione mu mun leen de façon très concrète euh, expliquer lan ngeen war a euh, def comme démarche mais am nañ mbégte euh, également ci studio bi ànd ci waxtaan bi euh, Serigne Saliou Mbacké mu Alaaji Baara nekk ndaw nekk employeur xam naa. bu lañ jógee di ngeen mën a <laughs> di ngeen mën a waxtaan. dans le cadre de Bawol transport. Hmm. moom problématique bu mu xam la. Hmm. xaritu ndaw yi la également ci fànn yu bari yoo xam ne moo ngi koy liggéey ak ñoom. Hmm. am na xalaat ci li nga xamee ne moom mooy waxtaan bi ñuy waxtaan dañ koy jox mu nuyoog askan yi jox ñu tuuti ci xalaatam. Euh, li nga xam ne moom koy dégg boobaak léegi ci li nga xam ne mooy waxtaan bi sëñ Saliou ñoo ngi lay ziar bu baax a baax Mbacke. alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Mhm. bismillah euh, Mohamed maa ngi lay delu nuyu bu baax. Mhm. maa ngi nuyu ñima togal ci plateau bi yëpp. Mhm. di nuyu soxna Marème ak min ci technique bi. ak suma xarit doyen. Euh, bo gisee dama daan woote ci émission yu bari. mais tey damay déplacer pour ñëw. parce que mun naa wax ne euh, suma domaine la. non seulement ndaw la mais dama nekk nit koo xam ne tamit dama yàgg yëngu ci entrepreneuriat so xoolee man entreprise laa njëkk a taxawal ci soxna parce que maa ngi ko taxawal en 2002 doo am soxna en 2003. Mhm. donc entreprise mooy sama aawo. comme on dit donc euh, lu ma xam la. Mm. lu ma xam la te depuis ba lépp Mohamed wax na ko léegi en résumé am naa lu plus de 70 personnes yoo xam ne euh, dañ leen fay par mois dañuy liggéey donc lu ma xam la beneen bit mooy ndaw ñi dañu ma ñor suma combat yëpp foofu laa ko jëmee. Mm-hmm. ku ma xam xam na ko tey bu ubbi woon antenne bi fii nit dañu dañu am euh, dañu dañu libre seen bopp. tout à fait mun nañ mën nañ loolu mun nañ ko mën nañ ko témoin. Hum. mais li ma ci dégg ci waxtaan bi je crois que depuis euh, dix heures quelque bi léegi maa ngi koy déglu mooy euh, président wax na ko léegi yi fi yi ñuy wax nii yëpp pratiquement mi ngi fi woon. man loolu rek moom mu ci xaw a jaaxal en sens yi ñuy tudd nii yëpp ñu ngi ci woon. Hum. beneen bi mooy président ñu ngi rafetlu liggéeyam d' abord parce que man ku ma xam-xam ne ni ci côté bi laa nekk. Mhm. mais dama nekk nit koo xam ne ni du ma waxal nit ki. pour lu ko neex. Mhm. damay xool li am ak li ma am xam-xam ak li war a nekk ma di ko wax. Mhm. mais suñu toogee en neuf ans doo ko yëg problème mu Sénégalais yi y' a problème trois ans moo ko fi dese. neuf ans mu doo ko reconnaître ne sénégal yi sonn nañu doo ko reconnaître ne Sénégal am nañu problème beneen bi mooy mu bëgg yëkkati mille cinq cent milliards ñaata moo

ñaar da nga da ngay relayer yow mu doog laa mën a recevoir te li may wax ni ci ci rajo laay wax. Mhm. Sénégal mun na ma jël en témoin. Mhm. képp ku bokkul ci parti bi ñemewoo sa demande financement. tout à fait parce que doo ko am. Mhm. loolu je l'assume. tout à fait buñ ma ci laajee lu gën a xóot dinaa ko leeral. te yaakaar naa ne boo xoolee ñi nekk ci coalition bi mun naa ko tuddee noonu. ñoo gën a néew ñi ci nekkul. te xaalis bi Sénégal moo ko moom. coalition benn boo ko yaakaar moomu ko. APR moomu ko APR ah, keneen moomu ko te ñooñu jëluñu leen en considération ci ni ñoom war nañ man a. allo bokk ci. Mhm. d' accord sëñ sëñ am na euh, ku nekk ci ligne bi daf fee xaw a yàgg nga tegal ma foofu sa baaraam parce que dañuy eggale ak yow li jeex si émission bi euh, salaamaaleykum dafa mel ni Ousmane Mara Diop la. waaw. Euh, nekk nekk attaché de cabinet ministre ministère waaw waaw pendant quinze minutes maa ngi xam. ah ñu maa ngi maa ngi nuyu maa ngi nuyu auditeurs yi. ci mhm. département Mbacké mën naa ne auditeurs yi national sax ndax man maa ngi Dakar maa ngi déglu émission bi. Euh, li tax nag important émission bi am moo tax. Mhm. ndax nga invité ñaar ñoo nga xam ne. Mhm. wax naa ko léegi ci benn commentaire ce sont des produits de l'emploi muy président Bass ñu bokk conseil national de la jeunesse. muy président Dione aussi ñu bokk conseil national de la jeunesse. muy mais nag damay damay damay damay am benn tuuti benn suggestion bu may wax sama président. Mhm. comme mhm. c'est mon président du département de Mbacké. Mhm. que ni muy ni muy ni muy ni muy ni muy ni produit bu bu bu Agri Jeunes. doomu Diourbel indi na beneen produit ba nga xam ne war nañu ñu ñëpp ñu takkatoo xam ne euh, li ñu war mooy que il est mi ngi ci position. parce que day défendre du ma may dara bu ñëwee bu ñëwee bu ñëwee bu ñëwee bu ñëwee comité exécutif parce que dafay jàpp ne doomu Diourbel moo nekk ci comité exécutif bi dafa bëgg li muy def mu gën koo def mu aw yoon ma nga ko ci félicité bu baax muy président Bass hmm. mais nag président de la république dafa am initiative pour jàppale ndawi Sénégal ndaw ñi loolu ñoo ko war a mën a accueillir ci seen i loxo al ba ouvert pour que jariñ ci seen i moroom yi ndaw ndax moom mooy porte bi foofu mhm. le président conseil départemental mooy porte bi ci bépp loo xam ne indil nañ ko pour ndaw. fenêtre bi rek ngeen di jaar chaque jour yéen si fenêtre bi rek ngeen di jaar maanaam non non non président dégg may ma rek may ma ma ma wax la mhm. bu ci amee benn suggestion bu mu ci war a def na gis le le directeur ne ko suggestion bii bu ma sañoon ñu def ko nii parce que lii pour ndaw ñi la boo déggee jorlu mu expliqué ko ni mu expliqué euh, ni mu expliqué projet bi jàpp naa ne loolu man fenn rek laa gis au niveau Sénégal quarante cinq yëpp dañ ko fay def quatorze non euh, dix régions yi yëpp quatorze régions yi yëpp dañ ko fiy def mais li ñu ci commencé guñ def barki démb la dem installé Matam président conseil régional ba président conseil départemental ba ñoom ñëpp dañoo ñëw àndandoo ak le la directeur ne lii su suñu yëpp la ñoo ko moom donc man jàpp naa ne président mhm. man loolu laay xaar ci yow li may xaar beneen bi may wax nag waxuma ko en tant que euh, nekk ci cabinet du ministre de l'emploi dama ko wax en tant que nekk doon jeune au niveau de du département de Mbacké président su ma koy jot su ma koy yóbbante du ko yóbbante sax ndax man naa koo wax mais nag daf cee ab loo xam ne ñun ñëpp nañu toog autour de l' essentiel naa ne loolu moo ko fi indi pour xool ne tey euh, pour xool ne tey am na ay manquement yu nu waral parce que nit ki boo ko booy def pour nit sans nit day def day defe ne def contre nit mm. loolu directeur di def pour la jeunesse de la pour gën a defaral li nga xam ne mooy politique bu président de la république jaarale ko ci ministre Dame Diop jàpp naa ne daal vraiment maa ngi rafetlu engagement bi nga xam ne ñoom ñëpp am nañ ko ci boo gisee Bas muy wax da naan kii kat wax dëgg yàlla département Mbacké yitteel na ko mais boo gisee John John il est de il il est de de la région parce que il de Bambey président conseil communal la comme ñun lépp donc France war la dee mën a am parce que ñi ñi ñu dénk ñëpp ay ndaw lañ hmm. xam mooy réalité la xew Bambey xew feneen xew feneen mooy xew toujours feneen fi nga nekk rek donc jàpp naa ne maa ngi leen di sant bu baax a baax mais juste rek pour banal wax wax benn kii ñun nañu xool les problématiques li ñu ëppal solo mooy que nekkuñu foofu naan lii ngeen waroon a def wala politique nangam loo gis lu ne nag dafa am loo xam ne lu ko wundu jàpp naa ne la ko wundu mooy jeunes yi du politique de dëgg la bu ñu dikkee foofu dana am des la yow Barth yi dem politicien kooku John Doog politicien la man mii politicien la donc y a des nga xam ne bu l'intérêt de la jeunesse taxawee nañu fàtte politique bi ne indi leen l'intérêt de la jeunesse que lii njariñu ndaw ñi la nañ ko defal pour ndaw ndaw ñi war cee mën a gis seen bopp bu ci amee lenn luñ ciy def ci exercice ñu ne ah ñun kat dañoo bëggoon ngeen doxe ko nii doxe ko nii doxe ko nii bu boobaa ministre de tutelle bi muy directeur bi dina xam ne kat lii ngeen joxe comme suggestion lu am solo lu lu tege ci yoon la dina ko mën a dina ko mën a di. jërëjëf dina ko mën a dina ko mën a régler. jërëjëf loolu daal laaj amoon dëgg dëgg lu ma ji wax di rafetlu nag émission bi vraiment parce que depuis moom mu commencé ba léegi maa ngi suivre émission bi di la sant Jo parce que it wax dëgg yàlla même pas une semaine ça sa ça veut dire que vraiment yéen ñi nga xam ne mooy organe de presse yi.

sëñ bi yaa ngi doon développé ponk bu am solo ñu bàyyi la nga daane la. d'accord Mohamed euh, li ma doon wax mooy euh, cest à xam nga réew mi dafa am côté boo xam ne suñ ko su ko nit yi nguur gi bëggee taxawu askan wi rek du du yomb parce que nit ki pour nga dimbali ko d'abord wala nga pour nga jàppale ko da xam fan mooy metti ci moom loolu mooy premier point bi te yaakaar naa mun naa commencer ci sous-préfet ba ci préfet ba ci gouverneur. Mm-hmm. Nous, ñi nga que di message du président de la République Nous, seen bopp xam nañ ne ñoom niñ war a jegee bi. Mhm. ko pour leen pour ñu buñ leen rombee sax duñ xam lu ñu nekk parce que ay vitre tente la yor. Mhm. duñ am sax seen <laughs> mhm. président bu ñëwee fii ci département bi audience am yëpp maanaam ñi mu àndal ñoo koy ñoo koy ku duñ ko gis. dama koy wax chaque jour président de la République ñaata yoon la ñëw Touba Touba ko de soo mun naa ne sax soo dee wax Diourbel. moo leen ci côté ci côté ñu liggéey. Mm-hmm. wax président de la République musul prononcé wu benn mot ci marché waxuma la sax mm-hmm. président musul sax programme la sax ba mais est-ce que du spécificité marché bi aussi. déedéet xam nga dafa am a privé. on est d'accord. Mm-hmm. mais loolu moom la neex. parce que Touba ci boppam moo njëkk privé te lu mu fi bëgg def mi ngi ko fi def. su bëggee ñëw mi ngi ñëw. Mm-hmm. mi ngi installé ay nitam mi ngi def nangam ak nangam. mais Sénégal ci tubaa ci Sénégal la bokk moom moo jiite Sénégal. Mm-hmm. Touba amul benn usine bu dul marché Ocass. Mm-hmm. téeméeri kër bu nekkee tubaa 99 yëpp marché Ocass moo leen yor. donc kon marché Ocass yeneen marché yi ngay gis marché hebdomadaire yi ngay gis nii sax marché Ocass ci la ñuy ñëw di jël ay marchandises. di rien que pour mën a euh, dimbali nit ñi ñu baña ñu bañ a solo ndaw yi euh, am na ponk bu am solo boo ci def mais ñëpp mënuñu également nekk ci oto yi wala ñu dawal Jakarta bu fekkee bëggoon nañu jël le maximum de ndaw ñu dugal leen ci marché de l'emploi ñu dem di xëy di suturlu yan secteur nga jàpp ne war nañ leen fa orienter ak naka lañ koy defee. C'est lu que la Mohamed man mi nga xam ne sax jànguma tubaab wala nekkuma ci ministère yi sax xam ko gis nga nit pour nga pour nga boo ko soxla ci kanam ci commencement bi par exemple nit ki soo bëggee sa doom am benn avenir li ngay def ko école mu jàng. Mhm. loolu ci lay rampé ba dem fi mais malheureusement ñun dama ko waxoon ëpp na 15 ans mën na leen nga jox ko par exemple système ñu s'arrête, parce que métier la mais nga jël benn xale bu ndaw bu am ans 7 ans nga jox mu nekk ci pendant combien d'années. Mhm. kooku su màggee lan mooy nekk ci bopp bi c'est ça le problème. tout à fait am na ci loo xam tamit parents responsabilité. mais day fekk boobu bu état bi maanaam euh, ay nitam xam ñu toll par nangam nangam à la base mais su fekkee loolu amul. Sénégal su ma toogee nit naan Sénégal ñaata habitant la mën na leen fu ñu koy xamee parce que ñoom ñi ñu jàpp en considération ak ñi ñu jàppul ñi pratiquement mën naa ne ñi ñu jàppul ñoo mm-hmm. Touba gi rek xamuñ ñaata lañ. merci donc loolu mooy première photo état. ba tax na ñi mënuñ sax xam ñaata ndaw ñoo fi yeewoo. mënul nekk <laughs> mënul nekk. Eh. parce que loolu mooy problème bi. Uh-huh. tubaab yi su nit ki maanaam waxuma la sax nga accouché ci kër. mosoo mënoo ko gis beneen bi mooy tamit nit day am certificat d' accouchement. foofu la ñuy njëkk commencé état nag bu la commencé foofu di la accompagner. Mhm. boo demee ba mesure dina mën a xam yow mii kat lan mooy sa lan mooy sa sa jaar jaar ba nga egg si fii. mi ngi mel ni tey boo demee ci réew étranger yi li ñu la njëkk a proposé mooy da ngay wuti carte consulaire. Mhm. loolu mooy mën a permettre sa représentant étatique bi fa nekk. mu mhm. mën a comptabiliser ñaata doomu réewam ñoom ñoo nekk foofu. mais par estimation rek la ñuy def. ok donc kon ñooñu pour ñu jàppale leen lu jafe la. li ci solution mooy. waaw ñu xool ñi leen jege. ñu xool ñi leen xam ñu xol ñi nekk ak ñoom ak lan mooy seen problème à la base. Mhm. ñu jéem leen a ñu jéem leen a taxaw ci loolu. Mhm. mais suñu toogee ci bureau yi. di di mhm. réunion ko di leen jox eh, waaw bu ñu egsi agence yi bi jaar rek noonu la mel. agence yi dañ koy def lu ci ëpp. pour seen ay ay ay nit ñi leen jàppale woon te amuñu fu ñu nekk ñu pousse leen pour ñu nekk fa. amul benn agence boo xam te ni opposant ko jiite. amul benn poste responsabilité ci réew mi. boo xam ne benn opposant moo ko jiite. xanaa opposant yi amuñu xel wala amuñu diplôme. wala jànguñu. Mm. d'accord on suñu waxé ñu naan jappal fi mais réew mi du gis nañ barki dem ben poste votant bo xamni nit bu yi lañu dem jox pourtant ka fa nekkon mi doon liggéey mais duñu xool loolu bu ñu ñëwee dañuy raxas rek d'accord donc loolu du solution bi d'accord Bassirou yaa ngi doon yëkkati loxo bu baax voilà dama doon répondre rek si benn euh, kii bu mm-hmm. maa ngi def promotion ci depuis sànq mi bàyyi xel tudd naa ñaar ñetti yoon Agri Jeunes. Mhm. te lu tax mënuma def promotion boo xamante ni doomu région bi. donc man damay éviter sax terme régionalisme bobu waaw euh, compétence mooy. voilà compétence bi la la la ñuy la focus. ndaw suñu war na mën a servir. voilà la ñuy gën a focus mais Agri Jeunes boo hmm. gisee ma ma ma ñeme wax. Hmm. ak ma xaw dal sama xaw a dal tuuti ci ñom hmm. bien vrai que c'est pas à 100% parce que euh, si wax lañ tollu mais au moins en amont. ils nous ont exposé de façon très claire leurs objectifs et leur manière de de de de procéder. niñ wara war a doxalee. ak liñ bëgg wax nañ ñu bi muy nekkee si digg mbas mi mënuñu dem visioconférence la ñuy jël tant que c'est sama kër laa toog def ak ñoom réunion ñu wax leen ne leen il faut se rapprocher de nii nii nii CDD yi nekk def au niveau du département si réunion ba na leen ko suggéré ñu bind préfet yëpp ñëwaat ànd ak seen ay techniciens def visio conf defaat euh, def def euh, si si si si salle bi projecté seen ay seen ay kii. léegi mën naa la laaj benn affaire. attends baal mhm. ma anglais baal ma anglais. dama lay wax lan moo tax may wax. ma ma non non je vous comprends man dama dama dama la comprendre. Mhm. dama la comprendre may wax comprendre ma parce que man si si suis en train de répondre. non dama la bëggoon rek dugalal benn mbir nga continuer ak moom est-ce que yow administrativement yow d'accord nga man man ma ñëw rencontrer la en tant que structure de jeune te rencontrer guma préfet. c'est ce que problème problème. non dédé dédé defal ndànk rek manam bu fekkee ne nee nañu gouverneur a ñun kat. dañoo bëggoon a def wa defal ndank le préfet c'est l'autorité c'est ce patron mo koy saisir. c'est pas c'est pas vous da ko war a tànn non autorité mooy saisir le préfet non d'accord da ngay def ndank rek ñu dégloonte. parce que pour man man dama japp ne bu fekkee ne ñun.

non comment vous euh, pouvez euh, aller chez le président du comité conseil départemental de leen préfet de le conseil départemental de la jeunesse waaw déglu il faut mettre. nga aussi non non attends attends mouvement de jeunesse mm-hmm. administration ñaa benn la euh, du ñu benn mm-hmm. am nañ fuñu fuñu bok ci doxaline yow tay mënuma saisir conseil communal de la jeunesse mm-hmm. sans me saisir la waaw wala déet mais ça si bien sûr. non non ci yoon. ci yoon non bien sûr. non amna autonomie mais ci yoon. balaa may saisir le communal. dama la war saisir association bi ñu fal sax. association sax mën nga saisir directement sans nga xam kan moy président CDJ. sam waaji sam waaji nag sam waaji nag il faut il faut mais pour man. Mm-hmm. pour man amna buntu bo wara jaar pour man buntu bi ñu war jaar. d'accord nañ ci loolu commencé nañ ko. mais suggestion yi nga joxé, mm-hmm. dinañ ci bàyyi xel bu eh baax. te japp naa ne dès lundi. Mm-hmm. di nga gis né dinañ dinañ dinañ am ay jéego yuñ ci teg dina am jéego ci tek mhm. te yow japp mhm. à partir du lundi. Mhm. tu seras un collaborateur direct. que ça soit yow que ça soit sa équipe. comme ni ngay doone collaborateur direct comme non lañ koy ak jigen ñi. ak collectivité locale. koku mom wax deug yalla ala kul hal day euh, ah, en même temps en même temps attention en même temps ak euh, euh, les autres acteurs comme chef d'entreprise manam patronat

débat entre président conseil communal de la jeunesse de Mbacké uh-huh. maa ngi jiital si nuyoo bi sëriñ bi fi toog euh, Mbacké Balla ñu ngi lay jaar déjà président conseil départemental ak sa beneen invité bi yéen ñëpp donc di rafetlu waxtaan bi maa dama xaw a yàgg ci liñ bi tuuti ça veut dire damay wax benn affaire bu am solo rek donc mbir xew na mais bu xewee aussi il faut que dafay laaj ab jàngat ñu toog mais parax paraxee rek réglé benn affaire boo xamante ni da ngaa mer wala da ngaa def ko wala léegi rëccu rek daal di jur sama xalaat ma si profité di waxaale que président doon na wax léegi boo tudd affaire Jakarta financement boobu ñu doon defal les jeunes yi nekkoon fii nii c'était pas loo xamante nii dañ ko jaarale ñoom comme fi ñu koy waxee ah, ay institution ak yooyu noonu man maa ko wut ak le président le directeur bi fi nekkoon muy Dame Diop dam nekk actuel euh, ministre te dañu taxaw daje mu laaj ma lan la ñu mooy besoin jeunes yi fii nii ma wax ko ko sur le plan fi ñu taxaw la ñu d'accord ci principe mun ne ma léegi pour nan la ñu def mu ne ko non y a des gars nekk fi yore ay entreprise di liggéey. oh là là dafa yàgg ci ligne bi ñoo ngi koy jégalu waaw waaw. loolu mooy pragmatisme. mooy pragmatisme nga ñëw nga gis nga dem si directement mhm. ñi nekkal jeunes nga ne leen fii lan moo fi gën a urgent par rapport ak seen local ñu ne la nii ak nii boo ko defoon tu règle un problème bu important bu important après nga jàll si leneen jàllaat si leneen par priorité pourtant pourtant loolu lañ fiy wax boobu ba léegi ba ñuy wax ba léegi boobu loolu la ñuy wax mhm. mais sauf que yow xejna da nga japp non non non non c'est c'est ça a été décidé de façon hâtive laisse la ici à Mbacké wa légui légui yow non attends attends attends tu ne peux pas vouloir une chose et son contraire dafal ndank yow da nga né da nga né ak ki fi génn mhm. euh ba ministre Damjo Diop mhm. séance tenante la len ne loo leen loo parce que ensuite tu m'as dit que Modou Fall aussi séance tenante lañ ko laaj mu mu approuver une décision. pourquoi ko le pragmatisme non attention le président du conseil communal da ko projet. non approuver yéen nag. waaw mais mais attendez attendez est-ce que xam un projet mission locale kañ le projet si wax échange. les idées. est-ce que xam nga mission locale est-ce que xam nga mission locale kañ lay kañ lañ commencé di déroulé. ici au niveau du département de Mbacké. mais attendez bi ngeen di jël hein? responsabilité bi ngeen di jël responsabilité bi si CDD ngeen ngeen engagement yi. mais c'est très normal vous avez parlé de pragmatisme

mu donne un débat qui est posé parce que jeunesse bi ñuy déglu nous xam nga lu lu lu parce que ñu ngi wax di aw day genre diversion. day doon non non non non je vous en prie xam nga xam nga xam nga xam nga dañ commencé won débat bi ñu koy ci luñ mën indil ndaw ñi. Hein. voilà que les non non attendez sur les questions sur les questions stratégiques non j'ai pas brossé mm-hmm. sur les questions stratégiques man dugg parce que qui euh, euh, euh, lit la def qui lit la def non, non yoy yoy du ci man li may wax sur les missions opérationnelles mm-hmm. de la mission locale sur les missions opérationnelles sur les activités concrètes que nous pouvons mener sur le terrain et que nous menons du résultat ci vous bo ñu né ah man ni la xalaate ni la xalaate mën naa fekk débat par contre nak, bon sur certaines questions man vraiment je préfère euh, ma bañ ma bañ ma bañ du dugg mhm. xam naa du loo xam dañ koy épuiser d'un coup euh, mais dal bëggoon nañu xam deug deug mission bi nga xam moy mission locale pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes man yokkute lay am ci ndaw yi am na ci deug mais je pense que comme man comme ñi ma invité am na ñu xam ne peut-être ils sont encore restés sur leur fin maanaam liñ ci bëggoon dëgg dëgg dëgg doy euh, doyu leen euh, xëy na fi lekk ngeen di installé wu dëgg-dëgg ba nekk en partenariat avec ces jeunes là di ngeen mën a am ay objectifs yu clairs yu précis ñu mun fay dellu siwaat ngeen wax ñu ay résultats yoo xam ne def ngeen ko fi parce que comme ni ko ñëpp waxee structure moom ak organisation

DER jaar na fi yem ci APR ak ñi ko jege yeneen structure de financement yu jóge ci ministère de la femme ak yeneen yi jaar na fi yem ci femmu APR yi ak ñi ko jege bu kurel bu mel ni ñëwaatee nekk mission locale ñu gis ci ay ndaw yo xamné c'est des gens de l'APR ñoom ñoo ci nek xel day ñaaw loolu kese la c'est à vous maintenant de faire en sorte que li ñu leen di mal ñu bañ leen fekk ngeen nek ci di lek prouver le contraire prouver le contraire et produire des résultats Si fileeg 6 mois ou 1 an ñu am un invité nous la fii nga won ñu ay ndaw yo orienté ngeen ba ne c'est ça le véritable défi Je suis nga entrepreneur entreprise tabax pendant 9 ans ñew soxla dara ci bi fu may neuf ans gouverné nañ ko mhm. projet bi ñoom bu ñu toogee ba léegi xamuñu fu ñuy jaar pour financer ndaw yi y' a problème kon ñi fi nekkoon fan lañ jaaroon kon dak kon yéen nangu ngeen ne fi ngeen jaaroon baaxul. baaxul laaj yi am na. foog nga set nangu ngeen ne yéen projet bi ñu ñaawoon neuf ans yëpp baaxul ba ngeen ñëw indiwaat beneen nag jéem a xool fu ngeen di jaar. ameen bi moom du laaj mo soo du laaj bunt bu muy jaar. pour dem fenn ci benn benn coin ci locaux bi. Mhm. au moins dirigé depuis quelque temps donc dirige le Sénégal 9 ans Dans indi ay projet pour nous ñi indi pour nous. fu muy jaar kon da ngay nangu premièrement yow yi fi a jaar mom baaxul ba nga ba nga jaar fa nga jaaroon. Mhm. bu loolu bu ñu bu ñu d'accord continuer débat tout à fait sëñ Bass nga tagato parce que technicien ba ñuy wax ne ki mais jeexul hein question bi mom non du jeex ñoom <laughs> kay dañuy tijji ay perspectives. rek di dem xam naa ne du mhm. et di di lay remercier si invitation bi. donc ñun dal fi ñuy terminer dañ koy cadeau yi dañ koy jeexalee si John. que ni la jeunesse est là. Mhm. ñun lu ñuy xaar moy ku accompagner suñu frère parce que ñun wax nga ko sànq ñun c'est l'équipe sortante. Mhm. ñun renouvellement rek la ñuy xaar pour dem mais quand même li ñuy bëgg mooy ñeneen ñi nga xamante ni dañ fiy ñëw ñu fekk fi ay espoir. Mhm. parce que quand même le président xam na wax na il a en face une jeunesse vraiment désemparée désespérée très fâchée très fâchée parce que lan moo ko waral li sëñ bi wax sànq sëñ bi wax sànq saa gis nga dañu ne président il a fait une bonne communication sortie bi mais dama ne waxu dégg naa leen boobu nag à 9 ans après c'est pas une bonne communication c'est pas une bonne communication donc nañu ratifier le tir ñun on a rien contre le président di remercier même même président mom ci barki démb délégation mag bi mu def indi ko tiib jaale suñu mhm. suñu kilifa gi fi génn sa ministre mi ngi ci woon dam Diop mhm. ak euh, ministre Omar Gay, Cheikh Abdou euh, ñom ñep DG Galoba ak les maires tous les maires le collectif des maires surtout geste bu important bi nga xamanteni def nañ ko à l'endroit de ce président bi nga xamanteni jogé na fi mhm. donc euh, ñuy ñaan aussi ñëpp ñuy déglu rek euh, ñu fasaale ko ci ay ñaan moom moom sëñ ba ñu bàkk ci donc di wax ndaw ñi ah, que amna lu bess lu fi nekk ñu ngi leen koy suivral buñ leen bu ñu doyee dana leen woné leen ngeen dem ah. mais xam amaguñ ci ben information non non ci obligation sax wo leen dem voilà di la remercier jo di remercier suñu ko di côté merci hein. donc euh, ah. di leen di remercier yeen ñëp ci invitation bi di waxat ni ndaw ñi euh, ñu ngi leen di xaar ci mission locale bi mm-hmm. ngeen ñëw ñun ensemble nous essayons de trouver des solutions par rapport à l'emploi des jeunes Voilà pourquoi ñu York ci solution à mon emploi des jeunes mhm. euh, di di di aussi aussi acteurs qui nous ñu nous sommes ñun suñu xememteef pour mu am synergie ensemble amul kenn koo xamante ni tey am na ñu xememteefu écarté la wala ñu bañ a liggéey ak yow. kon li ñuy xaar rek si ñëpp mooy. Mhm. ñu bokk même objectif. Mhm. mooy la réussite de ce projet. Mhm. et l'ensemble des projets qui s'activent sur l'emploi des jeunes. di remercier donc euh, euh, sami collaborateurs yëpp. Au, niveau de la mission locale de Touba. Parce que je sais, je deux de, de Mbaké. Je sais aussi, deux jours, def ñu ngi Nous avons travaillé, nu ñuy fait pour que, je sais, li muy wax ni. mën naa seede ne def nañu lépp lu ñu mën pour xëj na genre kii yooyu ñàkk am. kon nag ñu ngi remercier ñëpp. di féliciter waat suñu directeur ci courage bi mu am. ci benn dénkaan

stratégie yi nañu changer stratégie dugg ci yeneen pour mën a am ay solution yoo xam ne moom mooy nekk ay solution yu pertinente mais li ñuy gis jamono ji moom tant que moo ngi woy day nekk problème boo xamante ni fii ak 2029 bu ñu fi ñëwaatee même chose la ñuy waxaat donc maa ngi jaajëfal ñëpp bu baax a baax jërëjëf ñoo ngi koy gërëm bu baax a baax tamit euh, di ko sant Marème Diop euh, nekk bu rajo Futur Média di gërëm Babacar Sam tey dafa am ngant moom euh, mu ngi jiite site bi di 24 Nous ñaar la ñuy faral di tous les samedis ñuy suñu chroniqueur ci Radio Futur Média di gërëm euh, suñuy invité euh, Bassirou Sen, président conseil départemental de la jeunesse bu Diwan Pape Abdoulaye John conseiller en emploi agent à la mission locale pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes du département de Mbake may wax soxna yi ak ndaw yi ñëpp ñu en face sous préfecture bundam aussi après de partager ce numéro pour nous permettre à tous les jeunes à toutes les femmes de dem hmm. euh, euh, na lo lu am solo la di ki nga également employeur nek ko euh, borom kër la également ko ngi baax suñuy tous les samedis di leen gërëm yéen ñëpp yéen ñi participer ak ñi participer wul Mara Diop euh, Serigne May Seck ak ñi doon bàyyi xel ñëpp di leen jox rendez-vous incha allah beneen samedi ak beneen émission géew bi. senevision.com wóor la ñuy tëggoo. senevision.com kumpa tàggoo ak yéen. kii nag di leen wéy di ñaan ngeen di abonné ci suñu site bi di senevision.com te bu leen fàttee di bës cloche bi mooy tax mu leen di man di signaler.